macha allah suratul alxaaf baax na ñu koy déglu àjjuma am na solo lool man de mooy sama secret te nag dama leen bëgg ba nga xam ne damay bugg di partager ak yéen sama secret amul àjjuma buy romb te duma ko déglu neex na daw na yaram suñu borom subhaanahu wa taala moom ajogel bàyyil nañu fi xéwal yépp ci kaw suuf looy di surat la caverne de leen ci bàyyi àdduna nu mu xat-xat ak nu mu metti metti rek dañ delloo lépp ci yàlla subhaanahu wa taala moom aja wajal xeex nag boo koy def rek jiital ci suñu borom subhaanahu wa taala billaahi booy xeex te yàlla tax doo musa am defet barke alxuraan ma kan ngeen war a bàyyi xel mais bàyyi leen xel bu baax a baax a baax ni man li may wax fin bi fin bi damay am ndam ci lépp xamul nga tax parce que man yàlla rek moo ma ñor billaahi wallaahi du kenn nanguma dox ci ndigalu doomu aadama yàlla kese laay dox ci ay ndigalam moo tax nit mun nañ ma saaga ci ay wax mu yàgg mais yàlla dafa may may dëgg par la force doole mbaam kenn mënu ko dindi billaahi kéemtaan laa ci sama jamono nañ maa jàppee dof ñee jàppee ma kii mais man kéemtaan laa ci sama jamono billahi wallahi wa ci xam-xam ci nite ci nekk di di dox dëgg te di ko te yàlla daf may may ndam du ma musa am defet loolu suñu borom moo ko def nit munu ma fakaagal Macky Sall façon xërëm bu dul xërëmu jinne def na ma ko barki alxuraan ñoom laay gis ñuy feebar di bëgg a dee di samp perfusion nekk ci hôpital yi man dara mettiwu ma sànni nañ may korte rey nañ ay nag yu jë suul nañ nag lu ne def nañ ma ko pour éliminer ma fu ma sëriñ demee ba ci xool rek tey gis ni gaa yi ñu ngi sama kaw kilifa gii de mi ngi lay jéemal li kilifa gii de man leen dañuy dee ñoom ñëppay dee dinaa leen suul ñoom ñëpp laa dox ci seen bàmmeel barke alxuraan ja jàpp leen li ma leen wax ni billahi wallahi ñoom ñëpp dinaa dox ci seen bàmmeel di leen ñaanal parce que dañoo foog ni nit yi dañoo taxaw nii rek ay ay nit am na ñuy yàlla jël protéger leen boppam defaral leen ñuy waxte yàlla tax di doxtew yàlla tax ndeysaan ñu bëri ñëw nañ ci man li may njëkk a wax nag mooy di tuub di jéggalu ki nga xam ni mooy euh, sama rakk ji di Ousmane Diagne réeroo la woon rek mais merewu ma ko nit bu baax la ku ma bëgg la sànq sama yaram dafa daw moo tax ma def live bi ndeysaan ndekete Ousmane Diagne rakkam daf may bëggee waa këram dañ may bëggee rakkam sax day jël samay affaire def ko story suba ngoon guddeeg bëccëg ay xaritu rakkam ñuy fréquenté kër ñoom Ousmane Diagne man damaa saaga Ousmane Diagne waaye saaga naa ay rakkam ndeysaan xol bu tàng rek ma saaga Ousmane Diagne ndekete maa ngi saaga kër goo xam ne ñoom ñëpp man la ñuy bëggee papa ba yaay ja ay rakk Ousmane Diagne ñëpp man la ñuy bëggee ñooñu ñëw nag am lu ñu wax ak man sama yaram daw mu ruus ma ne wuy sama ndey wax ngeen dëgg de maa ngay saaga te ka may merloo sax waruma ko saaga parce que am na ñu mu bokkal ndey ak baay kon nag maa ngi jéggalu famille Ousmane Diagne di leen wax ñu baal ma àq ci saaga yi ma ko saaga mer ak topp sama xol la rek maa ngi tuub di jéggalu waa famille Ousmane Diagne di jéggalu ay frère di jéggalu ay mbokkam di jéggalu waa famille am di baalu àq di leen ñaan ci barke ajuma yi ñu jéggal ma saaga yi ma saaga seeni waajur yu góor ak yi jigéen maa ngi ciy jéggalu maa ngi tuub di jéggalu di ko defee ak xol nag di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu jéggal ma ko te ñoom maa ngi leen di ñaan ñu jéggal ma ko moom Ousmane Diagne mu jéggal ma saaga yi ak ay waajuram ak i frère am ak i sœuram dëgg-dëgg maa ngi tub di jéggalu mer la rek xam nga dafa metti nga leen di xeex bokk benn xeex Ousmane tam topp xolam kenn xamul lu ko yóbbu ndeysaan rek attaqué ci loo xam ne man du may gis nga tey ñaari soxna yu Ousmane Sonko li ma wax yëpp lañ wax li ma wax yëpp te man mënuma ñëw di wax samay source et pourtant bu ma ñëwee ne leen Ousmane Sonko de mi ngi tane waxuma wér na de mi ngi tane parce que alxuraanul karim ak barke ajuma ji kàddu googu ci ay soxnaam la jógee ci ay soxnaam la jóge soxnaam yi génn nii ñii ñoo ma wax ni ñoo jóge ci Ousmane Sonko man maa xeex ba ñoom ñoom nee nañ Ousmane Sonko bu ñu ko jàppee ci kaso bi ñu seeti ko mënuñu ko woon seeti ñi ngi doon préparé kon Ousmane Sonko ci ci hôpital ba lañ ko seeti jee ñi dem fa premier jour nee nañ Ousmane toog di waxtaan ak ñoom. ñu demaat fa Ousmane toog di waxtaan ak ñoom ñu génn foofu dugg seen oto ànd ak nijaayu Ousmane Sonko bi ñu déggante ñu ne ma ñu ma ma bokk naa ci ñi ko laaj mu ne Ousmane mi ngi tane. ah loolu neexul ay ñu ay jabaru Ousmane Sonko yu ma ne Ousmane mi ngi tane demoon nañ seeti ko léegi moo laa ma sant di gërëm demoon nañ seeti ko sax mais Ousmane mi ngi tane ma ñëw ne yéen sénégalais yi. yéen a ngi ñaanal Ousmane mais alhamdulilah Ousmane mi ngi tane wax ma wér na de Ousmane mi ngi tane parce que seeni wax la ñoom. donc loolu ma ci saaga wala nga wax ma ci ay wax mais yaa ngi may tooñ te pourtant du samay wax est-ce que te pourtant mënoon naa jóg ne bu soxna yi génn loolu barke alxuraan wax kon du ma génn wax dama mun man bandi laa dama mun a ànd ak nit ci mettit ñu may saaga sax mu wax ne mu wër ma ne du wax mais ma koy muñaale barke alxuraan di ko muñaale parce que dama du ma jël ay famille jabaru Ousmane Sonko yi ne ñoom ñoo ma ko wax kaa yi di dem ci moom et pourtant ñoom ñoo ma ko wax mais maa ngi def tekk muñaale day ndeysaan nekk en mission ay dugg ci sa am ñu bëri ñuy saaga te ku ma saaga am na kenn ku nekk ci ñoom koo xam ne bu ma kiiyee def ne moom moo moo laa dal rek bu musa wax loolu te soxna yi ñoo génn tey expliqué ne dem nañ seet Ousmane nu mu toogee wax ak ñoom def ak parce que man xam nga lan la Cosa Nostra xam nga lu Cosa mooy la cause commune mooy bu ñu àndee doomu sàngeen boo ca laal morom di yëngu bu ma àndeek yow boo ma trahirul du ma may musa trahir bu dee jotee même loo def ñu té ñu tiimale ma paaka ñadd nar ma rend du ma mus a wax ni kee la man bandi ci niveau boobu bandi laa du ma trahir xanaa nit trahir ma mais man nag yow kese ñu sekk ko nga def dara ñu ànd ci xoolal bët dinañ ma teg paaka ci put na ma yow la ma ne man la fekk du ma ci dara foofu sama gaayen bi la mais loolu mooy causa nostra man loolu laa gëm la cause commune parce que man ci squatu ooxorooxo laa bokk wëndëng challenge ooxorooxo causa nostra man loolu laa gëm mooy bu ñuy ànd nañ ànd ci ngor nu metti nu muy metti metti bu ma musa yoole benn néga et pourtant ci soxna son Ousmane Sonko la génnee tey génn nañ léegi wax ne dem nañ seeti ko seeti waat nañ ko ñu toog waxtaan kafre après ñu génn dem boobu Ousmane daanuwul te boobu jour bu may wax loolu jour boobu noonu jox naa information léegi ñu toog ñu toog de même pas après trois jours Ousmane Sonko doog a am malaise daanu nit dem dagg sama vidéo bu ma def y'a trois jours de cela nga xam ne mun na cee feebar ba dee ci diggante trois jours nit mun na ci feebar ba dee ci trois jours de cela nit dem jëli loolu dagg ko dugal ko ci contexte nii nii nii mi ngi doog daanu nga ne na xool leen waa ji day fen Ousmane Sonko ngi nii daanu kii ne fekk bokkuñu sax waa ji bu mu koy wax ak yow bu nga ko monté bokkuñu waaye loolu yëpp amul problème te yàlla wane na ni la may wax duma ay for nekkuma di imaginer nekkuma di fenalaate nekkuma di su dëgg rek laay wax xàq bil xàq waaye Ous Ousmane Diagne sama frère la kenn ñu boole. gis naa ñu bëri nag ñoo metti lu ne ma Mollah gis nga yaa ngi may yi sax lu ñu wax parce que dagg nañ sa vidéo boobu noonu xaw ma la page de Anita TV dugal ko naan Mollah nee na Ousmane nangam ak nangam yëfu seytaane yëfu saytaane may xam lan moo koy indi mooy ñun dafa am fu ñu toll ci xeex bi xeex bi mooy lu tey soxna Ousmane Sonko koy wax. soxla soxna Ousmane Sonko nee nañ gars yi seen xol yi ñoo fees te dëgg-dëgg seen xol yi ñoo fees jamono ji koo laal mu daanu parce que xol yi dañoo fees ba sëngéem benn kilifa diine dafa ma wax démb bu mag mu ne ma mola déglu naa sa live yi yaa ngi wax naan sénégalais yi lan moo tax mënuñoo jóg mu ne ma du mystique de du mystique de ma ne ko lan la mu ne ma damaa xool gis ni population bi dañoo sëngéem ma ne ko sëngéem mu ne ma waaw mu ne man dama ko listixaar gis ni population bi dañoo sëngéem ragaluñu mystique dalul mais seen xol yi dañoo fees ba sëngéem xam nga sëngéem mooy lan mel ko jaaxle def nii jaaxle xeex xeex xeex xeex ba sonn amutoo foo jëm ci rajo xeet dóoru toj taal lépp ñu jàpp ñii rey ñii nga toog sëngéem sëngéem mooy nii ci jaxaw di xalaat jaaxle di xalaat mais nu mu fan laa war a jaar fa mu ne moom bu mu xoolee dafa gis ni population sénégalaise bi dañu nekk di sëngéem mais dawuñu ragaluñu tiituñu te sëriñtu jàppu leen mais moom sëngeem la gis nit ku sëngeem nag mi ngi xalaat nit ku sëngeem mi ngi toog di réfléchir nit ku sëngeem jaaxle na mais moytul nit ku sëngeem te nee na instant yi nii nii nii population yi xol yi fees na te dañoo sëngeem billaay wallaay wa taalaay te ab kilifa bu mag la ci réew mi bu mag ci diine gi man damay déggante ñëpp nag mu ngeen may gisee nii damay dégg guddi gi man guddi mooy sama euh, heure de jinne kilifa yi yor kurus yi dinañ may woo maa ngi ziar waa famille Baye Niass di ziar euh, euh, famille sëriñ Touba gi di ziar famille Limaamu Laay gi di ziar famille Njaasaan gi Tiwaawoon yëpp maa leen di ziar ay nit baax la ñuy yor kurus yoo xam ni heure bu Sénégal yëpp di nelaw ñu ngi yor kurus gi di ñaan di wàcc kaamil di des fois dañ ñu bëri dañ ma ci woo moo laa neel amin te def ma dara <laughs> man def ma tus dañuy rek moo laa neel amin ndeysaan fekk ñi ngi ñaan hmm? loolu mbaax la rek neel amin ma ne ah amin donc li ma def nii rek teg lii daal maa ngi euh, live la boo xam ne daal ñëwuma sax pour wax ay maa yor dëgg ak aw ma dëgg maa nag man intéressé wu ma dëgg bu may def dëgg la yàlla bëgg waxtu bul ci sëgg loolu dañ ko doon rab dëgg la yàlla bëgg wax ko bul ci saga underground dëgg la yàlla bëgg wax ko bul ci saga dëgg la yàlla bëgg wax ko bul ci saga wu dëgg dëgg la yàlla bëgg loolu underground mooy sama premier sound dëgg la yàlla bëgg wax ko bul ci saga dëgg dëgg la yàlla bëgg wax ko bul ci saga rab bu njëkk ba nag ndeysaan <laughs> bokk na suñu premier sound rab hardcore kon xam ngeen ni dëgg dañ ko yàgg bëgg parce que dañoo bëgg yàlla te yàlla daa bëgg dëgg yàlla yor dëggam ngay wër lu neex doomu aadama yi ba fi ñukk dëggam dem wëri lu neex doomu aadama yi hey yow duñ ko rëccu kon nag dëgg la yàlla bëgg wax ko te bul ci sëgg brr yàlla bëgg wax ci sëgg boo juumee da nga ñëw jéggul boo meree saaga Ousmane mu bokk ci yow di sa frère ngeen bokk benn deret Ousmane nag dama am lu ma marqué ci moom ndeysaan malgré xol Ousmane daf ku ma bëgg la dama mës ànd ak benn waay ñu def benn photo Ousmane jaañ reyante ba dégganteeg man na ma moolaa ma ne ko ah, mu ne ma moytul booy boobu noonu quoi ma ko ah mu ne ma non xam naa ko mais sama benn copain la bokkaloon classe quoi mais mooy euh, jarbaatu telle personne la bu nekk APR affaire moytu ko quoi xam nga Ousmane na billaahi wallaahi xam nga ko ku lu bëgg rek a koy def photo boo xam ne yaa ngi ko photo nit fii Ousmane Diagne jël téléphone am woo ma ne ma moytul nit tel parce que il paraît que nijaayam dafa nekk ci APR wala nanga ma nang kooku ku la bëggul du ko def <laughs> ku la bëggul du ko def te Ousmane loolu dafa ma gën a marqué ci moom moom bokk na ci lu ma gën a marqué parce que kooku ku la yéenewul est-ce que dina ko def gis benn affaire bu mu yàpp ni danger la mu ne la moytul wala defal attention parce que kooku mooy jarbaatu tel tel tel nangam kooku ku la bëgg rek moo koy def mais vraiment loolu ça m'a beaucoup donc Ousmane daal jàpp leen ni c'est un de sang sama gaayen la tooñ naa nag parce que saaga naa ay waajuram te waruma ko def maa ngi maa ngi koy jéggulu maa ngi koy euh, boo leen jotee message ngeen yeggee ko ngeen ne ko maa ngi tuub di jéggulu di ñaan njéggal ci njabootam ak ci ay frère ak ci waa këram yi nga xam ni vraiment sori naa ci ñoom ñi may partagé di di ma waxtaanee maa ngi leen di Eh, ñaan ñu jéggal ma saaga yi ma saaga ndax nit moom matul te xol laa àndal rek maa ngi tub di jéggalu ci àjjuma ji ci barke eh, xaadimal Moustapha ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barke bépp kilifa diine ak kilifa aada ak ci seen barke yéen parce que am ngeen barke. waaw donc sama gars yi waaw saaga naa ko tuub naa jéggalu <laughs> yàlla da koy tooñ di tuub di jéggalu nit tam boo ko tooñee da ngay da koy tuub jéggalu. man jégalu naa de <laughs> man moom am naa humilité ak kuul te pourtant Ousmane maa ko mag njëkk ko ci xeex bi bu may xeex xale la donc ma damm ca boobu xamuñu ko moom bu muy ñëw mais daf ñu jàppale mais c'est normal tàng naa mer naa saaga naa waruma ko saaga parce que damaa génn benn dëgg boo xam ni ma gis nu mu koy def am ñeneen ñu seytaane ñu ñëw naa non moo laa nangam te ñoo xam ne xamuluñ ma dara xamuñu ma sax est-ce que xam ne Sénégal wax ji nu muy bëri lu lu nekk nag di nga ko dégg parce que li may xeex la am na ñu non moo laa def waaye bon bi bon bi man saxaaru cigarette sax bu ma <laughs> bu ma dóoree ma màndi bu ma la bëggee noq nga sotti ma saxaar cigarette sax ma def tap <laughs> mais samay daaj la samay daaj aalu yàllaahu laa yor samay daaj bu may dóor xam nga damay damay àgg sikar nag ab bàyyi faa laa bu may mooy wax dëgg damay yokk damay nekk ci ay yeneen aalu niveau nag loolu moo tax dof yi bu ñu ñëwee xool Baay Faal bi mu mu lay jox benn benn jëmm Cheikh Ibra ñu ay dox na fekk boobu man maa ngi xool fa yàllaaxu fa yàllaaxu du wax dëgg dëgg këj du ma gis sax li ñuy def ay daaju naturel la du tox du naan cigarette sax du ko tox licite <laughs> men boo duggee ci yaram ji saxaar newu ca saxaar nekku ci man caaxaanuma jëruma sama bopp tayle ndaw tayle sama ndaw man dama vierge taylewuma sama ndaw dama vierge comme góor yi def ni mel ni ay bëy ndëpp di tëb oh, ah, ah, ah. man gis nga nu ma mel ni noonu laa frais frais deux ans deux dents fooyewuma sama bopp taylewuma sama ndaw caaxaanuma ci àdduna di wër di daaloo ko tëbu mel ni bëyu ndëpp non man cocc set ak sellal gëm suñu borom subhaanahu wa taala bëgg ko lool nag mu toll ma fu sori may def lu ma sant di moytu ay tereem di góor góorgóorlu ci ay ndigalam moo tax ma ne ñu bëri xamuñu ma Sénégal dañ lay gis nii rek ñi non kii lii la yow kii lee la non moo tax nag loolu mooy sama secret mooy ñamay wax la ñuy wax noonu kooku du moolaa xam nga tey nit bu ñuy ne Mollah moo a duul <laughs> du Mollah parce dëgg moo ko sonal même ñu ko jur su ko jur ndeyam ak baayam boo demee ñu leen moytu leen Mollah moom dafa dafa tibsé de moom dëgg moom amu ci papa amu ci yaay amu ci maam ñi ma jur ci boppam ñoom xam nañ ni dëgg fu mu ma fekk daf ma fee bàyyi. donc boo gisee ay mbuucaa mbuuc yu doog a judd wala ñuñ fay ñu nekk ci internet non bàyyi moom Mollah dafa mën a fen <laughs> da ngay toog di rek ñii duñ ma mun a ma metti parce que ñii waxuñu ma ndax xamuñu ma. buñ xamul dëgg dañuy moytu fépp fu ma jaar ñi ma xam laa lax wax de boo demoon kilifa ne la moolaa mii rey fen jàppal ni moolaa fenkat la musoo dugg ci àdduna dégg la kilifa musoo wax ne moolaa day fen te pourtant sama sama xaaju dund yëpp moom laa ko dundal caat mosoo ko dégg mu ne la moo laa day fen xamul la te pourtant kooku moom war a mun a siise te pourtant sama xaaju dund yëpp moom laa ko dundal léegi ngay gis ay nit yoo xam virtuel ci internet bii bërki démb la ñu ñëw commencé non kii day eh, dëgg te duñ teg benn argument <laughs> mosoo gis moo wax nit ne day fen tegal la argument du am ngeen koo gis ko gis wax ma te foo ubbee di nga fa fekk non kii day fen mais pour doo mus gis ñu ne day fen parce que lii parce que du am de parce que du am <laughs> du am de <laughs> mun ngaa wax nag mun ngaa wax mais wax génne jamais day fen nga lii la du lii lii la doo ko gis <laughs> déedéet billaahi wallaahi waaye dina dëggu rek kenn gisu ko kenn du ko gis mun naa la bàyyi ba suuf kenn du ko gis donc gars yi live bu ma kii waa ji nee na ma Mollah waa intéressant xaw ma va sur l' essentiel woowu ma la pour l' essentiel de damaa woote pour jéggalu damaa def live bi am àll déglu alxuraan gi ba sama yaram daw rek barki laa ilaha illallah ci àjjuma ji jumaa mu barak xam nga ma aalu lii moo tax maa ngi jéggalu allah ak tamit ay mbokk kii di Ousmane xamal ma ni ñoom de man rek la ñuy bëggee ci biir kër Ousmane te metti na leen loolu ñu yeewu gis may saaga seeni waajur ndax Ousmane te ñoom def ñu yëguñu tinunu ah tooñ naa leen di ma taal ah déglu si allahu jóg nag ne xaaral ma laay jéggulu lii laay bu jéggalu la du ay laay bu ay vache l'essentiel ak focus 2024 ak yooyu noonu lii laay bu jéggalu la laay bu focus 2024 ak l'essentiel def naa ko sànq maa ngi sol ensemble bu bu kii bu bu bu beneen ensemble bi yére yére boobu foofu moo am loolu tey fii jéggalu la dégg laay bu jéggalu la dégg <laughs> voilà àdduna nag de c'est pas ku yow rek va sur l'essentiel loolu nag suñu dund bu boobaa du am sens dund am na lekk am na naan am na saf day day am na doxot am na saw am <laughs> na gére doxantu bàyyi leen ku wax rek rek va sur l'essentiel àdduna du l'essentiel kese àdduna am na leneen àdduna am na béggee sa baay béggee sa yaay béggee say frère naan ataaya waxtaan adduna du l'essentiel kese bu leen foog ni gune salaamaaleykum rek non va c'est l'essentiel moo va c'est l'essentiel ban essentiel xanaa àdduna essentiel rek fi ne ah, xanaa àdduna amul lekk xanaa àdduna amul nalaw xanaa àdduna amul ndox xanaa àdduna amul saf day day ubbi duus bu dugub bu bi xanaa àdduna amul ay biir bi daw waaye nga sonnal nit gis salaamaaleykum jógee non waa c'est ban essentiel waaye àdduna am na leneen waaye àdduna am na biir bu tàññ am na biir buy daw am na ree am na kaf àdduna lépp du guerre di militaire yi danañ taxaw sax guerre yëpp am nañ arrêt match yëpp am nañ am na am na am na fin de match fin de temps am na tamit lu ñu koy waxee mi-temps am na ñoo xam ne ñoom dañoo foog ne rek guerre la ñoom pour ñoom Mollah bu génnee rek dafa war a tirer non war a a avancer fi léegi l'essentiel naa léegi pareegu ma nga bëgg maa indiwaat fenn xanaa nag sa baal nag nit laa nag dama war a yow di julli di jàpp nekk nit tamit du ma dem du ma rab ah waay waay bismillah kon jeex na ciao one love rahma dëgg la min ladunka rahma hmm, ay yàlla boo mën a riime de suñu borom ay yàlla yàlla sàmm Ousmane Sonko waay ay waay yàlla yàlla may ndam Ousmane Sonko waay may ko Sénégal ay waay yàlla yàlla may ndam ci xeex bi waay allahu akbar ay waay yàlla nañ yàlla may ndam ci barke alxuraan yàlla nañ yàlla may ndam ci suñu xeex bi coono yëpp luñ ci daj ay waay yàlla nañ ko yàlla defal ndam lu rëy waay 2024 ñu am ndam lu rëy yàlla bettee ñu xéwal ndam lu rëy waay ay waay yàlla ko yàlla na Ousmane Sonko may ñu ko ñun ñëpp billaahi rabu rabu samawaati wal ardi ñu ngi la koy ñaan ay waay yëkkatil Ousmane Sonko rot rot ci côté rëccal ko ci loxo seytaan rëccal ko ci loxoy Macky Sall ak i ñenam rëccal Ousmane songo ci lëndëmu Macky Sall te tëmbal ko ci leer yaa ya allah maa ngi lay ñaan ci sa barke ajuma ji ay waay yàlla na ñu may ci suñu xeex mi xeexu métti la xeex bu seen jihaad la waaye allah maa ngi lay ñaan subhanahu wa taala nga defal ñu ndam nga defal ñu tawféex ci xeex bii ñuy xeex muy xeexu Afrique di xeexu Sénégal di xeexu développement di xeexu justice di xeexu liberté di xeexu démocratie ah ya allah ah ya allah mon peuple souffre Ya Allah, mon peuple souffre de justice. Ah, Ya Allah, mon peuple souffre. de justice, de démocratie, de liberté. Ah, Ya Allah, sauve mon pays, sauve ma nation, ma nation guerrière. Ah, Ya Allah, au nom d'Allah le Tout-Puissant, Ya Allah, sauve Ousmane Sonko. Ya Allah, sauve Mola Morgan et euh, Ah ya Allah, sauve-nous des mains de, de l'oppresseur, des mains de Macky de des mains des tyrans, des mains des dictateurs. Ah ya Allah, yërëmal képp ku Macky Sall rey. Ah ya Allah. yal na nga tabbal àjjana ñi nga way daw yi nga xam ne Macky Sall leen fi jëlee ci ay ban fetal ah yaa allah ñi nekk ci kaso yi yal na leen génne ñi nga xam ne Macky Sall leen jàpp tooñ leen tooñal ci leen tëj leen ko kaso yi yaa allah prisonniers politiques yi yal na nga leen libéré ci sa doole ci sa kattan ci sa mën-mën ci sa leer ah yaa allah yal na sobe sauvé njabootu Ousmane Sonko yal na nga leen sàmmal sa bopp sa bopp yow yal na nga leen sàmm yow yaa allah ah yaa allah suufeel Sénégal ayaa allah ñu ngi la koy ñaan ci barke laa ilaha illallah ci sa trône ci sa kan ci sa kam ci sa kamaal ci sa mat yaa allah ñu ngi lay ñaanal ñu ngi lay ñaan nga defal ñu jàmm ak salaam mucc ak xéwal gudd fan ak wér lépp lu nar a yàq Sénégal lépp lu ko nar a gàllankoor lépp lu ko nar a jéemale ci lëndëm yaa allah yaa rahman yaa rahim yaa malikal mulk yàlla na nga defal Sénégal ndam yal na nga sauver Sénégal yal na nga yërëm way daw ni ñi rey yal na nga rëccal ñi nekk ci kaso bi ñi nga xam ne dañ leen tooñ yal na nga defal ndam rëy Ousmane Sonko lu kawe ci njottam li nga xam ni doomu aadama munu ko yaa ko mun yal na nga ko def yow yaa Allah ci barke laa ilaha illa allah auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin